tuq ak gën ña nga amee wuute ca law bi waaye ma law mooy seen yàlla sëriñ Muhammad Fay di fajkatu fajkat yi nekk itam seetkatu seetkat yi nekk fii ci diwaanu Kaffrine nga mën jokkoo ak moom ci 77 855 14 tàmbali ak yow ci seetal la say mbir ba mu leer nañ nee na secret ya ca maam ca biteelub secret ba lépp a ngi mu dëxëñ ci moom biteel ba daal bu ko yëngalee lu mu la wax takkal téere te xam ni dara du ca deñ Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV il est 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Vous dee gan nga ci kër gi nag le bouton abonnement bi vous bul activer la cloche de notification bi de ngir bañ tardé benn ci ay vidéo et maintenant bon visionnage. maa Diop ak danoo xam ne danoo bokk ak Diop ba pare te ñoom mën na koo bëgg mais war nañ ko mën a encaissé ndax parce que lu tax si Kounda Diop xam na ni Diop xam nañ ni moom ñetti seex yi leer na ko na jéem a waxaat na jéem a fexe nu waxat mu waxat mais warut a defaat luy ñaaw wala yooyu moom daa waa nekk de fexeel lépp mu sedd. bu ko defee ndax moom fi mu xam lan moo ko waat te xam nañ ko maanaam bàyyi nañ ko bàyyi ndegenu moom dafa war na fexe ba bay defante jool lu rafet pour joo mën ko bëgg mais mënut a def jool li mu def joo ba pare wi ñii def naa jool nee naa ko trop yoon te maa joo ni mu ko eenee xam nga daf ko eenan ndeke jëkk dafa een fi mu jaar naa jóg jëkk tey jii bu fekkee ni ëmb joo bi dafa yàqu a naa eenaat na mën na eenaat mën na gën a eenaat naa jóg ndax day lépp ci dundam rek naa jóg ko naa xajamal xam nga a doy waar loolu moo tax taa mu demee noonu jox seen wàcc waaye baax di leen bégg bu waaw Fatou ne ñu ngi lay siyaaraat di siyaaraat Mata bu baax di siyaar ñëpp di siyaar soxna bi ñu fekk ci bunt bi on sewa dara ñu ngi koy siyaar jox ko waaj waayam waaw noo ngeen ko waxee dëgg la xam nga démb ne dama dama fàtte dugg dama duggul dama daanaka laaluma sax sama connexion moo tax tey ji ma bëggantee kii wala yooyu mais eh, affaire bi ni mu demee noonu moom doy na waar toom ndogal la comme Fatou Kiné ni nga ko waxee mais nag joom moom lu la koy man a wax bopp bi daa dëgg ndax te muy loolu xam nga tey ji ba mu déggee ni naa joom génne mu ngi dikka sàngawee bu doon ànd ak sagoom du fa dem sax wala dem ñibbi seen kër toog jàpp njàmbur am ndax am na ci yoo xam ne mbirum yoon la tey jii loo topp topp sa xol daa war xam ne yëf yi mbirum yoon la yoon mooy def liggéeyam bu ñu demee ba ba yoon setal ko na mu doo wax leneen pexe mu war a doo ko jël mais ko dafa yóbboo ci yoon yoon di def liggéeyam na bàyyi yoon day dem ba mujj leen man su may jaar nga te image day defe damay defe nii dafa xeeb waa yoon loolu moo tax dafa xeeb waa yoon ci liggéey mbir mi te waru leen a xeeb dafa waroon a bàyyi noonu mu ngi et puis naa joobit bi nga xam ne joo daanu na ñëpp système bi mu dawal waru ko woon a dawal bi mu ñëwee woo waa waa waa sappo yi ñu ñëw bi ñu ñëwee waan na tey am nu mu taxawee nu dul noonu ndaxte tamit moom tam xam ne ndax parce man li ma jaaxal mooy li jaaxal si film bi mooy. Euh, Baye Matar maam diggante boobu jàmm mënut fa amatoon diggante naara ñoom waa ka ñoom àjà foofu jàmm mënut fa am lu leen naar def moom. da xaw a bëri trop sax naar laa faral de mais li mu leen def moom daa xaw a bëri li mu leen trop bëri na trop sax. sëñ Mata li nga wax noonu dëgg gu wér la li nga wax noonu dëgg gu wér la ndaxte ndaxte bu fekkee ne bu fekkee ni bi moom dafa am mu woo sàppoom moom wax dëgg yàlla woo wala doxalee noonu woo wala doxalee noonu mais nag Madior yaakaar naa papaam sax lay gën a mere la parce que papaam la moo kii mooy di problème yëpp. te que tey xamul ni tey nëbb gi nëbb joo loolu man naa ju yeneen conséquences yoo xam ne day day day kenn du kenn du ko mën a liggéenti loolu moo tax parce que joor man ba mu dajee ñaar joor te ga maan am na lu demee ne problème maan naa am bu gën a garaaw bi su dafa xaw a doy wax mais man li may laaj mooy joor bu demee ba xam joor xam na ni tata ma joor wax na ko ne ko mooy yaay yaay man naa joor ñoo bokk ndeyal baay mais moom bu demee ba am ci loolu lu ko leer nan lay xoolee naa joor ak nan la ñuy mën a nekkee moom wala yooyu ndax que est-ce que du ko jël euh, comme li ñuy wax bu demee ba dëgg gi feeñ tamit comme ni ñu koy nëbbu noonu li ko yaayam téewut bu ba mu am ko lu ko leer am na ci yoo xam moom la doon doxalee di doxalee loolu moom moo tax mu demee noonu. Naar Diop moom ni doxalee waru koo doxalee man moom ànduma cee moom ndax man dama ni bu doon ab jàmbur la sax mu sañ koo taxaw yëkkati ko mais ndax naar ni mu doxalee nii moo joor moom day mel ni rey gi rey yaayam réccu ko benn yoon day mel nii réccu ko te it. bi joor daanu am na nu mën a taxawee taxawaay boo xam ne après joor mën naa bàyyi lépp mu sedd ndax bi joor daanu bu doon ni mama baneel taxawoo nan la ko taxawoo kon man lépp mën naa bu noppee après mën naa bañ am problème bu doon boobu moo ñëw jéem ko yëkkati waaw jéem ànd ak ñu koy yóbbu jéem taxaw noonu. ñun de waaw Ndiaye noonu la fay demee nag fi mu nii maa joor da koy gën a mere ndax moom donte reyalu ko woon sax mais da koo jaayaan mu naqari ko fi mu toll nii dem na ba reyal ko doomam waaw faw mu jàppal ko euh, lu métti te it lépp ak Pape Birahim boo xam dëgg gi fi mu nii am na loo xam ne bu ñu doxalee ñu woon kon xale bi mën na cee bañ a ndax joor boo xamante ni yaayam mu ngi dund rek kon affaire yi dee ci mais ñàkk xam gi ko ñàkk xam moo tax. ak naar Diop lim ko xañ muy yaay comme man nañ ni moom la ko xañ moo tax fi mu nii mënut am jàmm moo tax bi mu ko yëgee a toog mun mënut toog li mu doon wax rek bu njëkk mooy naar Diop bu génnee rek bu ne bu génnee kaso rek man man maay dugg loolu la doon wax moom fas génnewul woon lu dul naar jóob génn rek mu jëm koo faagaagal moom bëggul naar Diop génn moo tax mu yaaka bi mu yaakaaree ni ñee ci pexe yi génne ko la nekk. mu mere leen man dama yaakaar ne da koo gëmal sax loolu laa yaakaaroon non dana gën a tàng ñoom ñaar sax am na nu mu doon demee bu lii xewul woon mën na noo jubboo mën na noo am jàmm mais fi mu toll damay xalaat seen ñàkk jàmm day gën a taxawaat ndaxte bu doon bu jikkoon jikki bu doon bu deful woon lii comme yàq ëmb bi nii xam nga moom la doon jotal ba daanu bu ci loolu amuloon am na nu muy demee bu ñu demee ba xam ne yaayam diwlu mi ngi doon dund yàgg-yàgg mer gi mën naa jeex mais fi mu toll nii da koy jural geneen mer goo xam ne da koy jàppal naar donte yaayam feeñ na ba ñëwaat mais du tee da koy mere ba léegi ndax lim ko xañ ci boppam moo rëy man joor moo ma jaaxal joor daa ni moom gëmul ni naar jóg ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay moom daa mel ni gëmul loolu dese na koo gëm ndax bu ko gëmoon damaa yaakaar dana am neneen nu mu doxalaate nu bokkut ak ni mu doxalee nii pour jëm koo rey naar joobit moom day mel ni rey gëm rey yaay joor ba léegi da cee kontaan ànd ci mbégte day mel ni rëccu ko benn yoon day mel ni ko day mel ni ndax dérangé wu ko ndax bu bu ko dérangé woon donte joor da ko bëgg na gaañ sax mais après waroon naa xalaat ni la jàlloon jàll na fi mu doon nii leneen moo ñëw leneen la ñuy dund ndax boobu xamuñu woon di def fi mu doon danoo xam di def day mel ni day nekk day mel ni lam def yaayam moo naqariwu ko ndax bu doon naqari na ko dëgg dëgg dëgg mu koy xalaat di ko rëcc waroon naa mën a taxawu joor dimbali ko. ba ni mama banel def bi muy dem loolu joo naar moo ko war na def waaw la fa demee de la fa demee ndaxte boo xoolee boo xoolee boo xoolee naaj yoon nag dama koy coow dama ko bëgg a tooñ mais euh, kaso bi am na lu mu rëcc ci kaso bi quoi ndax parce que boo xoolee bi ko yaama ne daa waa porte pelante dane ko man bu fekkee ni du lii ma nekk sax ma man ko waaye fi mu nii ma nekk nii ma ci dool yi kon am na lu muy bàyyi xel quoi ndaxte eh, am na yoo xam bu amee rek day am nu mu fa demee moo tax mu demee noonu waaw eh, maajoo moo xam naa jéppi na papaam moom même bu ko waxul ki laa mel ni jéppi ko ndax bi muy ñëw noonu waxu ko sax Noël bi ndax doo ko fekk muy sol mbubbam mu laaj ko naa ko foo jëm mu ko xam ne kon jéppi na ko ndax xam na ni li mu doon bañ am na ndax doon na xam na ni ah, ci gras yu mu doon yu mu mu am ci mbir yu ci bari am na te affaire yi day gën a monté tey jii joobu bu jógee hôpital it day nekkaat beneen nit beneen nit lay nekkaat ndaxte tamit am na lu dal ci kawam mooy loolu loolu moo tax mu demee noonu mais yaama moom kan lay comprendre yaama kan lay comprendre famille boobu ci la bokk moom tam ka yaayam ñibbisi na ñu ko maman banal comprendre euh, kii ñu ko maman banal wax na ko ne ko maa sa yaay ñoo bokk comprendre moom kan lay comprendre kan la bëgg a comprendre même euh, Maysa Maysa comprendre war na comprendre bu yàgg na parce que moom it gis na xew-xew yi gis naa job bi mu génnee kay yaayam la ñëw yaayam ne ne ko naa job sa tante la mais ba léegi moom tamit mënut a comprendre famille boobu da bëgg a boole naa naa bokk ci naa ci moom ci ñoom la bokk waaw naa bokk ci famille boobu de famille naa bokk naa ci boobu la bokk ci ñoom la bokk kon moom kan lay comprendre moom i tamit affaire daal yéeme nañ bi yaayu noonu waaw